tanu ko daan tagge naa réew la moo xam réewam teranga la daan wax ne réew la mu am ay valeur ay mag ñu am ay valeur ñoo fi tëdd naam réew moo xamante dañ daan wax ne réewam kersa la réewam jom la réewam teranga la réewam yaatu la réew la moo xamante ni ku ci nekk da ngaa jàppe sa bopp ni nga jàppe sa ni nga jàppe sa bopp nga jàppe sa moroom réew moomu tey lañuy rey rey suñuy jigéen di leen fekk fa ñuy liggéeye ñu leen di rey reyin yu ñaaw di jël paaka di jam ci jigéen joo xamante ni jigéen ju ndaxu la yoo xamante ni mi ngi toll ci dugg ci àddunaam ngir war a tabax dara ci société bi tabax dara ci société bi mooy may nan ko borom kër ba mu tàmbalee di sëy ba yàlla mi nga xam ne mooy barkeel ak mooy def cëb sëy la ko ca gën mu tàmbalee di ca def meññat meññat mooy lan mooy doom doom joo xamante ni ma nga toll woon ci ñeent juróomi weer benn waaye dikk jël alalam rey ko jam ko ay paaka réew mii ndax mooy réew moo xamante ni emas bi ñuy gis jamono yii ak at yi ndax loolu mooy réew mi fi mag ñi bàyyi loon ndax mooy réew mi mag ñi daan wax réewum teraanga la mooy réew mi nga xam ne kump ku mas a am jaaxle ñu fas la ndax réew mii nit ñemeeti na fii dëkk ne dafay dox ay soxlaam réew mii ndax nit ñemeeti na fee taxaw ne dafay dindi alalam ngir di ko fi def ngir xeetali doomi sénégalais yi déedéet réew mi daltu na ginnaaw lool lool lool su ma waxee daltu na ginnaaw ñun ñu fiy dund ñoo deltu ginnaaw ndax su ma radat na asfala saafi lii na ay nit dinañ dem ba seen daraja wàcc ba nu dem ba tolloog ay bàyyi ma loolu nag kenn jiituwu ci état bi nga xam ne moo yore sunu sécurité yor sunu lépp ginnaaw sunu borom tabaaraka wa mbokk yi doomu aadama bi ko sunu borom di ko bind ne ko dama lay wàcce ci suuf di ci waxtaan wala boog mu ciy diisoog malaaka yi wala mu koy yëgal malaaka yi malaaka yi dana ko yaa nga wàcce ñoo xamante ni bu nu demee ci kaw suuf dañuy yàq suuf ñu fay tuurante ay deret lan yàlla ne leen da ngeen a defe xamut loo xamante ni dama da ngeen a xam lu ma xamul mbokk yi ndaw si nin ko def di soxna kinne na ko nekk yëg wëndeel ko ci sa bopp yëg ne sa biir kër la xewe xewewul ci kër sàngam xewewul Dakar waaye misaal ko sa biir kër ci la xewe tey ku nu dikkoon fekk sa doom ju toll ci fanweeri at wala ñaar fukki at ak nàngam ñu rey ko dana metti ci sa xol segam dee gi nga xam ne sunu borom tabaaraka wa taala mooy dee gi ni wax dee naturel bu ko defee sax ci biir kër wax jullit bi na muñ doonte dina mën a muñ waaye dina yëg ne aw metti tàbbi na ci biir këram mbokk yi bakkan yàlla rek moo xam dayoom moom mi ko bind moo tax ba mu ko bindee teg ko ne bakkan gënul bakkan bakkan bu rey bakkan nanu rey bakkan boobu amul benn bakkan boo xamante ni war naa dund rey bakkan ba noppi am sañ-sañab di daagu ci suuf bu dee ci jamonoy lislaam de boo ko defee la nga xam ne te rey googu sax du doon rey ak tey waaye bu dee rey ak tey la bu dee rey goo xam ne rey ak tey la daan rey bu dee rey goo xam ne du rey ak tey da ngaa war a joxe dëye senegal ñetti fan la coow ku dee ñu génn la mbokk yi fan yee sunum réew yënguwoon na ci at mii ñu génn fukki bakkan ak ñeent dem ca tey jii ñu bari fàtte nañ bakkan yooyu fàtte nañ lim ba sax nu ñoo xam fàtte nañ ko ni Sénégal di reye ay bakkan léegi dafa mel ni ay yoo sax deewewul noonu ci bakkan ci ci kii yooyu sax ñoo ëpp sécurité nit ñi nga xam ne ay doomu aadam la te doomu aadama ne suñ borom moo waxoon ci alxuraan ne dama koo teral wala xadd karam naa bani aadama bu nu demee ba doomu aadama di dund dund gu suufe nii dund gu deltu ginnaaw nii sunub état taxaw ne cell ñuy fekk xale bu ndaw boo xamante ni xale bàyyi mal xale bu xamagul dara ñu dugal ci tabax di rendi ni ñuy rendee xar ni ñuy rendee bay di ko rende muy yuuxu ca kaw ñu dem ba ci sunuy dem ba ci sunu réew jigéen ñi ca gën a néew doole muy mag ak jigéen ak xale ñu tàmbali di rey ay mag ñoo xam ne dañ leen di fekk ci seen biir kër ñu liggéey seen alal ba moom ko ñu rey leen jël seen alal dem ci jigéen ak teraanga ji yàlla def ci jigéen ñu àgg ci kawam ba noppi rey ko jël alalam waaye sëñ bi ana moog nag léegi ndax lii ñuy dund dund gu gu gu dund gu texe la wala dund gu la gu nëx laaj yépp mooy dund gu nëx la ñuy dudd képp ku génnati sa bakkan li wolof yi daan wax sa bakkan a ngi ci xottu gerte waaye fi mu toll mi ngi ci xottu gerte mbokk yi li ma jàpp ne de moo ko mën a faj te yàlla waxoon na ko ci alxuraan mooy ku rey nan la rey ku rey ci xel mo xel muy dund sax wala xalaat yow amatoo sañ-sañu dox ci suuf amut benn àq bu nu mën a teg ku rey wala sanction bu nu ko mën a teg bu gën a maanu sanction bi yàlla wax mooy nan ko rey waaye ki rey bàyyib jàmbur ba noppi wëlbati di dox ci suuf ay doomam nan la ñuy def ki rey jëkkëri jàmbur ba noppi wëlbati ko suuf nan la euh, jabaram di def ki rey jabari jàmbur wëlbatiku di dund ci suuf yor sa jabar kooko nan la jëkkëram di def xale bi xol leen ko rek ci misaal ba mu juddoo ba mu juddoogul li ci baayam sonn yaayam sonn ko ñuy xotti di ko faj di ko wéral ngir bëgg mu dund ba màgg ba taxaw ci société bi xale boobu leen ci fere ci xaalis bu doon alal ju niy lim rek kenn xamul nu mu toll te loolu lépp ñu ngi ko bëggaloon mu dund rek ba doon mag yow nga dikk rek faagaagal dund loolee ci waajuram yooyu doon def coono boobu ñu ci doon sonn guddi ak bëccëg nga xëy faagaagal ko ci ay minutes ñu bàyyi la yow nga mën a toog di doxu sa itte déedéet loolu xel nanguwu ko ku rey ñu rey la àtte ba nu ca man ba ci ñépp mën a jàng mooy yow mii di rey nit kii jigéen ji nga fekk muy liggéey di daan dooleem nga dikk rey ko bu la neeroon na boo ko reyee jël xaalisam boo noppee dañ lay rey di nga xam ne lii amalu la njariñ bu fekkoon ne xale bu jigéen bii danga koo gis ne danga koo xemmem ba dikk àgg ci kawam ba def ko la nga koy def boo noppee rey ko boo noppee ñu rey la di nga xam ne loola jëru jëru ko ndax dangay xam ne li la ciy fekkaat jëru ko ndax ginnaaw yow boo ko reyee boo noppee dañ lay rey bànneex ba nga ci am amuñ jëru ko te wolof yi dañ daan wax ne ñett jërul ñett tayel jërul ñàkk bànneex jërul gàcc àdduna jërul àllaaxira daray àdduna dara daray àdduna jërul ñuy rey nit man jàpp naa ne sa baaraam bii nga yor muy baaraamu sang lañ ku la waxoon ma dagg ci tuuti te jox la milliard wala àdduna ak li ci biir da ngay wax ne jaru ko waa ana moom nag nga bëgg a rey nit nag ndax loolu jar dara jar na ko ci àdduna nanu delluwaat ci àtteb lislaam delluwaat ci yarab lislaam nanu yar njaboot gi yar bi nag kenn jiituwu ci état dégg nañ ko barki dem muy wax ci jikko yi jikko yooyu ñuy wax ne jikko yu rafet di sàmm jikko yi loolu daf ci war a dëgëral war koo dooleel war koo forcel ndax moom de balaa nit a ñëw ci moom mu ciy joti booba bu jikko yu rafetul bu agsee ci moom moo ciy gën a sonn ndax ay kaso lay tabax ay tribunal lay kii ay dossier lay taxaba tabax yoo xam ne nu koo àtte guddi mënu koo def dara kon na jàppale nit ñi ci yar bu jëkk ba mooy fexe ba jikko yit ñu defar ko jikko yi jëkk yi nag dara jiituwu ci ñu fexe ba ñiy yar ñu jox leen ay moyens ñiy jàngale ñu jox leen ay moyens te man de li ma jàpp ne bokk na ci mooy sàngara si nga xam ne xale yi dañ koy naan ak dorog bii nga xam ne xale yi dañ koy naan dañ koy jël ak yàmbaa ji nga xam ne dañ koy jël waaye nit ki bu fekkee ni yii su ko jëlee xelam doo day tàggoo xelam ndax yii jar nañu koy yombalal ndax yii jar nañu naa ko euh, am nga ci liberté di ko tasaareel dem ba àgg ci mbuusi ñaar fukk boo ko soxlaa sax am ko di ko am ba ci bunti euh, élèves yi bunti école yi dan nga ko fi mën a am ñu jël ñoom ci seen xalaatu àdduna ne dorog dan ko ku ci jàpp dañ lay tëj nangam ku jàpp ci yànga yàmba tëj la nangam sàngara moom mën ngaa am cent nga jënd ko te li sàngara di def dorog di def wëlbatim xel moom la sàngara di def li yàmbaa di def moom la sàngara di def moo tax lislaam buy aaye moom aayewul di détaillé nangam danaa lii comme xool na ko ne day yàq xel rek da ko yépp la boole fi mu toll daraja ji sàngara am daraja ji yàmbaa am dorog am ko moom la sàngara am lislaam moom noonu lay xoole lislaam moom xoolewut benn bët waaye ñaari bëtam lay xippi xool ko ginnaaw kii daal saa bu ko jëlee tàggook sagoom xelam yàqu moom dañ koy aaye lépp mbokk yi nanu bàyyi théâtre yi ñuy def di ko def di ay reyante di ci am ak film yi ñu ni tegal ay rayante yi dem ñu ni jàngal mooy nan la ñuy sàcce nan la ñuy raye nan la ñuy yekkataane nit nan la àgg ci kawam loolu ëpp na ëpp na beneen bi ci des nanu bàyyi télévision yi nga xam ne ay caaxaankat ak nit ñu amul benn bopp la ñuy teg ci télé bi ñuy def yi fi caaxaan koo xam ne amoo benn benn xalaat bu jub sa dàll yi sa boo ko summi woon munoo boo wàññi koo di ko sol munoo xàmme dàll yi nga mën ñu teg ko ci tele lu mat deux heures de temps bërk démb gis ngeen ki ñuy wax mbay la xaw ma bëgg moon tudd sax ak xaw ma papsi la xaw ma ñu nekk ci télé bi di fi xeex kii naa ko ngóor jigéen nga kii naa ngóor jigéen kii du ngóor jigéen kooka tey bu yoroon paaka mënu ko rey en direct ñëpp di seetaan mu ut rey ko koo xam yaa ngi koy dóor ci kanam di ko dóor ci bët ci télévision en direct ñu jël ay nit ñu amul benn maanaa ay caaxaankat ñu jox leen télévision yi jigéen ñoo xamante ni daanaka sol yu awra wala ni sol ñu teg leen ci télé bi ñu ne ñii ñooy ay modèle ba noppi modèle yi doon ñuy am ay bain di am ay xaalis ngóor soosu mas nañ ko wax ne ko waa yow sa oto yi ngay jëli foo ko jël lan ngay wax mu ne man waxi dof rek laay wax moo tax ma am lii waaye lii moom sëñ bi am réew ku ko bëgg tabax ci façon bi nga koy tabax politiciens yi guddi ak bëccëg ñuy saaga di saaga nit ñi di dóorante di xeex ci kaw kii am réew nii leen koy yore ah? mbokk yi nanu dellu si waa sunum xel rawatina politique li mu yàq ci réew mi defaru ko lu nu toll li mu yàq defaru ko yàq na ay jikko yàq ay valeur yàq euh, ay famille yoo xam ne am na ko yow feek ñu ngi lay saagaal nit koo xamante nii du sab noon la wala sa euh, sa sa ku la ku la yow sa xol a ngi sedd feek ñu ngi la koy dóoral sa xol a ngi sedd ak loolu la ko mën a defal sa xol a ngi sedd saaga yi ñuy daggal ay responsabilité politique yoo xam ne nu dara lu dul bëgg moom réew mi ay gone yu ndaw di leen saaga ak jigéen yow nga ne ci cell ah te gis ngeen fayu feek amul ak sanction amul cim réew maandu te amul sis sis bu dëggu amu fa dara du ca baax xool leen li lay wax ne la fayu ni mu amee solo bërki démboo njaay Ousmane song génn na fi lu man juróom yoon saa bu génnee bu waxee waa APR lu mu guddi guddi danañ xëy génn ñoom lu ko waral mooy danoo xam ne suñu bàyyee waa ji muy wax dana leen gañe ci politique moo tax saa bu waxee tey ci bu waxee fajar ñoom bu bët setee ñu xëy wax bu waxee wi ñu wax deux heures du matin te loolu teg ngeen ci seen bët lu ko waral te ñoo ñu ko seen àdduna dong ak seen intérêt la ñuy défendre waa intérêt nit kii nga xam ne nag nit la doomu ya aadama la juddoo ci famille juddoo ci askan ñu xëy rek faagaagal ko rey ko ñépp ne cel ana fukki nit ak ñeent yi fi deewoon te réew mi benn benn benn kii duñ ko def góor góorlu na nag sunu armee bi jàmbaar lan jàpp nañ kooko jàpp kooko doyul jàpp kooko doyul loolu sëralul xolob waa ji sëralul xolob mbokk yi lii day indi leneen ci réew mi nit ñi dañuy mujj rewaltewu ndax mënunoo rey nit ba noppi gis ko muy dox di kii fan yële waxoon naa ko fi am na fi waajoo xamante ci ci nee ab police la moom ma ko doon nettali nee na ma man damay jàpp benn nit ba ci yàgg nee na ci ëllëg sa mu romb ma naa ma xàmme nga ma ma ne ko déet xàmmewul mu ne man nga jàppoon bërki dem loolu defe nga ne mën naa indil am réew au sécurité sécurité mooy nit koo xamante ni li ngay bëgg a def xalaat nga ko fi nga toog di yor say arm ak nar a dajji ji bi kër ak jàmbur wala nar dem xalaat nga ne lii boo ko defee la ci fekk mooy sa bakkan ngay ñàkk kooko ndax dina mën a kuy ñàkk sa bakkan ëllëg ndax di nga xalaat luy ñëwaat ëllëg ci sa kaw mooy dangay xalaat ne su ma defee lii lii moo ciy topp waaye su ma defee lii lii rek du mujj fenn dinaa la rey ba noppi te du mujj fenn loolu beneen bi ci des jibar yii di nekk ci télévision yeeg rajo yi nañ leen wàññi nañ leen fi jëlee ndax nit mënut taxaw ci télévision di gone gu ndaw xong cur kaalawu kaalawu naa man yor naa ndomba yoo xamante ni képp ku ko takk ak lu cooli rëy rëy rëy doo dem kaso tey bu fekkoon na dafa dem ca ndomba yooye mu am ca bu fekkee nan ko waxee dëgg la dem rey kii ba noppi jël alalam bu boobaa euh, day xëy rek di dox ci kaw ah loolu kenn war na ko wax ci télévision wala ci rajo te taxawuñu jëli la kii nga xam ne dañ koo dénk xaalisu réew mi mu ne ñu ne ko waaja jibar ba nekk ci télé bi ne ko man loo mën a def ak xaalis boo mën a lekk lu mu rëy rëy boo ñëwee takk ndomba gi doo dem kaso kooku buñ ko joxee xaalisu réew mi mu lekk ko da xëy di toog takk ak ndombaam loolu jibar yi nañ leen arrêté am réew li koy doxal ak li koy avancé mooy ñu bàyyi nit ñëpp seeni sécurité jaaxle daal la nga am dëgg yàlla lii kenn kenn xamul lu mu doon kenn kenn xamul lu mu doon ñu taxaw taxawlu fii di ñaan soxna si yàlla na ko yàlla jéggal tàbbal ko àjjana ay mbokkam mën naa cee jiital sama bopp ndax sama mbokkam jullit la yàlla na ko yàlla may xolu muñ ñoom ñi nga xam ne seen mbokk jullit la seen mbokk deret yàlla na leen yàlla wóotal lu xamante ni yàlla na yàlla defal seeni xol te seral ko te yàlla tàbbal ko àjjana yi si te yàlla aaral leen beneen bi ci des ñun ñëpp ay jullit la ñi ëpp ci senegal te jëf yi jëfi jullit ñi koy def rek ay jullit la nanu jàngalaat xale yi alxuraan léemaay yi alxuraan indi yonante bi indi ko nan koy jàng ab jullit day fàggu yonent bi wax na ay ñaan yu bari na ñaan yi ku ko ñaan yàlla dana la musal ca nangam ñaan yooyu bu nu ko sàggane bu nu topp adduna ba ñaan yooyu duñ ko ñaan ku bis jot na nga dem waaye nag na ni ñaan ñaan nganaayul jullit la de nganaay la lu rëy rëy rëy nanu koy def yal nañu yàlla musal ci seytaana assalaamu aleykum wa rahmatullahi barakaatu Tanim TV